kon ambiance bu relax ci óolu hôtel fi nga xamante ne moo nekk tañeeru gaynde yi te si atmosphère bi ni mel ci la gaynde yi wax ne seen objectif nekkul leneen dudul gagné CAN Côte d'Ivoire 2024 pour CAN bi moom sérieusement jaral na ma lu ne lu ne lu ne euh, fois naa def le tout le tout pour euh, indiwaat coupe bi fii Sénégal parce que euh, première fois buñ koy jëloon li ñu sentiroon ñun dong nga ko xam ak yàlla dama ñëw pour jouer dama ñëw pour gagner CAN euh, voilà c'est ça ça me tient à cœur parce que tamit bëgg naa aussi tamit comme tous les comme les aussi tamit faire kii chose. on est prêt pour aller là-bas pour euh, xeex comme ni nga ko doon ku joxe lépp ñaanaat yàlla yàlla mayaat ñun ndam li te bi ñu leen laajee li nga xamante ne moo di malédiction champion d'Afrique yi nga xamante ne saa bu ne ñu si bari dañuy toog premier tour gaynde yi ñoom nee nañu gëmuñu li ñu ni mel. bu ñuy dem kaan ba dañuy comme ñoo jëloon coupe dañuy calme serein et humble parce que boo deful noonu rek dalay sonal te ñun dañuy ñëw tranquillement def suñu compétition normale et di ñaan yàlla mu mu jox ñu coupe bi encore une fois. joueurs yi di jouer fële ci Arabie si ñoom daal dañoo jàpp ne ñi nga xamante ne ñooy critique championnat bi ni mel daa mel ni xamuñu. bu ñu teewlee ki nga xamante ne moo di Edouard Mendy ak kii di Abdou Diallo di jouer championnat yi ni mel ñoom daal dañoo jàpp ne championnat européen yi yóbbu lu ñu benn yoon li nga xamante ne mooy championnat saudi arabe bi wala fële ca Qatar. ndax dañoo jàpp ne rythme yi nga xamante ne moo am ci championnat européen yi rythme bi ni mel moo am ci fi nga xamante ne moo di Qatar wala Arabie Saoudite te gaynde yi ñoom daal nee na ñoom ñëpp pare nañu pour conserver li nga xamante ne moo di